makaarimul axlaaxi mbakkaanu yem ma jéema kañ te bàkk Seex Abdul Karim makaarimul axlaaxi mbakkaanu yem ma jéema kañ te bàkk Seex Abdul Karim makaarimul axlaaxi mbakkaanu yeem doomi sëriñ la dib sëriñ bu yaarame ma ne leen sëriñ bi nag muy Cheikh Mouhamadul Mourtada bu ñu àggalee dana ñëw sant mbooloo mi ñaanal nu ba beneen yoon léegi nag li ma leen waxoon mi ngi nii sëñ baa ngi nii dafa ñëw ngir sant leen ak ñaanal leen rek jërë ngeen nee na saa bu koor gi ñëwee njàng mu ñu def ci ngoon gi bis bu ne sëñ laa ngi toog day doon toog ci wetam rek waa maa doon wax loolu ci suba moom moom mii laa ko doon wax mag gi ma gisit benn bis waaw bi mu koy ñaanal ci bopp bi la jàpp loolu lépp ak cofeel rek la fóon ko noonu saa bu ñëwee kay da koy yóotu ba fóon ko <laughs> bi mu koy tàmbali da ko waxoon ne ko damay tàmbali jàngum xasida mi ci koor gi bëgg waxtu wu nekk ñi di ko def ba ba ñuy wari yow nag dama bëgg nga ñëw di ma wéttali loolu loolu la ko santoon ci ma koy tàmbali kon xanaa ñëpp maa si déglu sëriñ bi rek <laughs> <laughs> waaw alhamdulilah asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakaatuhu barke sëriñ Touba barkeb Cheikh Mahamadul Fadal alhamdulilahi rabbil alamin nun ñi fi teew ñëpp nu bokk sant yàlla suñu borom julli ci rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam sant Serigne Touba sant seex Mouhamadul Fadal di am mbégte nag lool ci teewaay gi nu teewe nii ci sama doomi sëriñ gii nga xam ne moo ma woo ma wuy ko ngir jëmmi sëriñ Falilu ngeen sëriñ bi maa ngi nii rek dikk naa wuy si naa la donga yaa ngi nii maa ngi nii yaa ngi nii ne mi ngi nag ñëpp ci turu mun Mountakha mi fi toogal Sayxul Xadim yàlla na fi yàgg loolu te wér muy jëmm joo xam ne saa yu yëkkatee kàddoom rek ku dib murit da gën a bëgg sëriñ bi da ko gën a wóolu da nga ko gën a yaakaar da ko gën a sopp nee ku mel noon nag ku ko am na ko ñaanal mu yàgg fi na fi yàgg lool lool lool ba doon kiimtaan ci àddina ci barkeb Serigne Touba ndax moom lépp Serigne Touba la gisul boppam de Serigne Touba rek lay gis ndax lool yi mu ne Serigne Touba. amul menn menn menn mbindeef mu sëriñ Touba ñee ci boroomam amut ne amut ne loolu sëriñ Muntaxa ko wax mu waxit ne doon nitu yàlla day am na solo lool waaye nag nun nan fexe bay niti sëriñ Touba rek boo nekkee nitu sëriñ Touba man ngaa nekk nitu yàlla waaye mën ngaa nekk nag nitu yàlla te doo nekk nitu sëriñ Touba ne loolu la sëriñ bi doon leeral mu ne kon nag mu wax ne moom sëriñ Tuubaa mi ni yaakaar tey ak ëllëg malaayika yëbu ko de ab yonent yëbu ko ne loolu sëriñ Muntaxa ko wax waaw koo xam ne nag malaayika yëbu la ab yonent yëbu la ana ko nu la doomu aadama di yabe ah, ah waaye loolu mënut a am waay waaye nag ñi ko yab ah nañ xool rek ah, sëriñ Tuubaa li ko yàlla def ku mu naqari sab xol day wow rek di wow koŋ rek doow naat mukk ci àddina si ñu ne waaye nag ku ko bëgg waxtu wu nekk da ngay naat sab xol di féex ngay am fierté di kontaan ngir Serigne Touba rek noonu nag nooy nii mooy ñun ñii ñu ngi nii nii li ko yàlla may ku yàlla bind muy muy mañ la ko mas naa wax ne sama taal bii ma taal ku yàlla bind mënatoo koo fay daal di wax ne taal bi àgg na ci man mi taaloon taal bi sax mënatu ba koo fay nee na mooy yoonu murid wi nag mooy lii ne ba ma ko taalee ba tey ba tey fii ñu toog nii ci àll bi nee mi ngi tàkk rek di bérex béréxi rek di wéy nee kooku nag kon koo bañ gisuma la mbaaw man yaa xam nun ñu ko bëgg danañ dund dund gu neex yaakaar ëllëg àjjana te da koy am yaakaar ju wóorit nag yoo xam ne wóolu nañ ko loolu man maa ko wax mu ne kon nag nan sant yàlla ndax bi muy liggéeyal yàlla ak yonent bi moom rek la woon. ni mu bëggee yàlla ni mu bëggee kenn bëgg ni woon kenn bëgg ni woon yàlla. ni mu bëggee rasulullahi salaay salaam. kenn bëggee wu ni rasulullahi. dafa wax ba wax ne. sëñ Muntaxa lii mu woote rek bu yàggut. ci surne xasida yi. ne loolu lépp wane Serigne Touba rek ak tagg Serigne Touba rek la woon. nee ko loolu nag ku ko sëb Serigne man. wala sa maam. wala sa mag. wooteel nag ba xam ne yow da nga def am ndoo am déet. Ah, ah, nee defe noonu du yomb de xëy ba jant so ñii xëy ci sëñ Tuubaa lépp lépp mu sotti ko yàlla ak yonent bi te xaajul sax yënguwul yënguwul sax yëgul sax ne tàmbali nañ mu ne kooku ko def moroom yaa gën a tay ne du sa moroom yaa ko tay waay kon nag nu sant yàlla nun yàlla bi mu nu boolee ci sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa moo dàq ak lem ndax lem boo ko mosee ci sa gémmiñ lay saf neex waaye sëñ Tuubaa moom bu ne ci sa biir ci sa jëmm jépp lay yëg neex ci sa ruu gi ci sa yaram ci sa lépp nga ko yëg kon nag noonu la sëriñ Tuubaa mel kon ku am ko mel noonu sant yàlla jàpp ko nag bu wér bañ koo boole kenn nun daal lu waay am soxlawuñu ko de bëggunu la de soxlawuñu la de yàlla bu la xam sax faf sëriñ Tuubaa rek lii xew ci lii xew ci àdduna lii xew ci jamono ji. coow yi bari na coow yi bari na de. waaye nun nan bàyyi ñuy soow rek. dañuy soow rek ba alko rek. bàyyi leen rek. sëñ Abdul Ahad waxoon na ne. sëñ Touba. du ko ñuy xeexal. dañ koy bàyyi rek. mën na boppam. nee nañ sëñ Abo agsi na. waaw alhamdulilah. day yaatu lool. nga xam ne su boobaa day jar sëriñ bi yëgal ko ñëpp tuubaak ndakaarook Sénégal gépp lañu koy yëgal su boobaa nag day jar sëriñ Murtala ñëw jiite si ko nee lii nag ginnaaw benn tool la sëñ bi ne ma doy nga ca moo tax woote bi yaata luñ ko noonu woote woote ko woote bu yab rek waaye waxoon na leen ne leen. bu ñu jekkee ba ba liggéey liggéey ba noppi. suñu jekkee bi ba noppi. Serigne Mourtala dana ñëw. sant nu ñaanal nu. nee loolu nag mooy jotaay bii sëriñ bi fekk nu mu ne waaye far nag ndey njulli gi doon liggéeyal noonu far agsi ci noonu far na ñëw nag <laughs> nee na gisoo sëriñ Mourtala ni mu beppe koo fi mu newoon rek ba xaw a daanu ci sama kaw sax man mii nee bi sëñ bi nee bi wàcc sax moom yëgu ko <laughs> nee loolu nag mooy yoon wi sëñ bi nee na loolu yoon wi waaw koy mbag <laughs> noonu rek la demee waaw mu sëñ boobu ne noonu nga wax rek noonu la demee <laughs> sëñ bi nee na kon kàddu yi mu tolloon rek nee day dellu yeesalaat ak nuyoo nee ci turu sëriñ abul baraka mii di jëwriñ ñi seex Mouhamadul Fadal nee yàlla na fi yàgg lool te ak mbooleem njabootam gépp ci turu jëwriñam Cheikh Mouhamadul Basir moom seex Mouhamadul Fadal ak turu sëriñ Abdul Fatah mi yore kàddu kër gi ne ñoom ñëpp ñu ngi nuyu mbooloo mi ci seen tur di nuyu sëriñ Abdul Karim mii ak mbooleem taalibe yi mu àndal yëpp ak mbooleem xarit yi bàyyiwunu kenn sëriñ Abul Baraka wax na ne am na mbégte lool ci yow seex Abdul Karim ndax xam na ne su ko wootee woon nee du mat sax benn bis waaye nee na ba tey sax bi nga ñëwee rek matu ko nee na sa pas-pas ak sa pasteef ak sa bëgg Seex Mahamadul Faadal ak yéene koo liggéeyal nee looloo tax mu sant la liggéey bi waaye nag na mu la ko joxe woon rek na ko fonke fooge woon nee na fooge ma àgg na foofa mu ne kon nag mun sant nañ ci yàlla bu baax nun nag sëriñ bi woon na ma na xam waaye yow mii woo nga ma man nag yéen yi ma bokkal sëñ Fallu sëriñ Abdul Baraka mii mooy Cheikh Mouhamadoul Fadal waaye ku ma ci woo ci yéen dootuma xoolee atat wala dara ne sëñ Fallu rek laay xool ci yow bu ma lay agsi ci yow ne saa yow ma wooyee rek loo ma fekk ma di ko def bàyyi naa loola ñëw wut si la yow may woo ndax woote gi nga ma woo ci Madina gii am naa ci neexal boo xam ne danaa jox sëñ Abo danaa jox dana ci jox waaye nag nee neexal bi du ko wax fii waaye da koy nëbbu ndax sëriñ bi sëriñ yal na nga fi yàgg Mbàkke te wér yow day Mbàkke am nga rakk yoo xam ne day yombul ci ay rakk rakk yoo xam ne yii loo bëgg guddi ak bëccëg yow rek lañ cay déglu sëñ Muntaxa ngay déglu de waaye ñun yow rek la ñuy déglu yaay sunub sëriñ yaay jëmmi sëriñ Falilu ci noonu yan na fi yàgg Mbàkke te wér sa yaari mag ya fi nekkoon rek fa nga ah, fa nga àndoon ak ñoom rek nee na fa nga teg sa tànk ba tey yaa ngi dimbale njaboot gi yaa ngi leen di yërëm di leen seet di leen nemmeeku waxtu wu nekk di woote téléphone di nemmeeku nee te loolu lépp la neexoon man naa ñàkk day mbàkke ñun day mbàkke na la wóor ne yëmu yëbu ñu la de ci àddina mukk ci àddina ndax sëñ falloo tax sëñ fallu kenn waru koo yab na mbàkke nag nu jégal ngir jëmmi sëñ Fallu Mbàkke dimbale nu rek saxal ñaanal nu <clears throat> yàgg fi rek ngir jëmmi sëñ Fallu ñaanal nu rek Mbàkke loolu rek la amin amin amin amin amin bég na lool liggéey bi kawe na njortam sëriñ Abdou Karim nee na mi ngi lay ni mbooloo mi de xol sedd na lool nee sa teewaay bii nga teew ak jëmmi sëñ Murtala ji nee bañ gisee sañ Murtala rek doyoon na sëkk nee na nga far ñëw nag gën a taal nag taal bi nee loolu tax mbooloo mi bég lool seen xol sedd nee kenn ko ne tey boo yeggoon ca xolam nee dana sori lool ci bànneex bég nañ lool yal na nga fi yàgg te wér na nga fi yàgg te wér amiin jërëjëf ne fooy toll rek na tàllal nag rek sëriñ bi ñaanal nu amin aju yëpp faju amin amin tijaan ya ñañ fay dajaloo ñam yey jalaañoo day dagan tey tegaloo Cheikh Abdul Karim borom makaarimal axlaax murit yaak tiijaan ya nga fay da joloo ñam yey jëlaañoo day dagan tey tegaloo dongom ya mokku lool di leeral seen kanam bëkkun fataaju ñam du ko xam dongoom ya mokku lool di leeral seen kanam bëkkun fataaju ñam duggantuma ko xam Cheikh Abdoul Karim Serigne Abdoul Karim Cheikh Abdoul Karim def leen ñu magal borom makaarima lax-lax doy loo na Cheikh Bamba ba toog ca dëkk ba di am teraanga teddu lool ngir barke ba doy loo na Cheikh Bamba ba toog dëkk ba di teraanga te lool ngir barke ba rafet ji ko waral mu doon kuy tërbiya